ñi ngi tàmbali suñuy wax nag ni ñu ko baaxoo defee di ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te ba liggéeyi sëñ bi mu tàmbali mu yeggale yépp naal yeneen ba yeggale ko yàgg fi lool ndax ñun murid yi nag dañu bëgg xalifa buy tijji te xeer yi bari na sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg tijji lépp barki sëriñ baax ñu ànd ko ak moom ñi ngi ñaanal tamit suñu mag mën nañ ni suñu wayjur ndax ay doomam ñoo mag ñu bari ci ñun muy suñu sëriñ di sëñ jéemul sëriñ Ibrahima Dior Amar joxe nañ ci dog léegi di ko ñaan ñaan lool kon duma ci yegg si waaye nañu ko fàttaliku nañu ko ñaanal yàlla na fi yàgg barki Ahmadou Mbacke yàlla na dund lu ëpp fuuf li ay waajuram dund may nañu fit may nañu doole boole nañu ci boppam xamal nañu ki ñu doon boole nañu ci dëkk bi lu ñuy def mu nekk suñu kanam nekk suñu ginnaaw nekk suñu ndeyjoor nekk suñu càmmooñ bala ñoo dem tàgg ko mu ni boo leen demee loo leen wax maa ko wax boo leen demee sama cachet jox naa leen ko loo leen bind def leen ko ci loolu chance la ndax kilifa nag ku ne di nga am kilifa léegi sama sëriñ sama xarit seen jili wax na ko band yi sax am nañ chef waaye nag chef bu mat chef yàlla rek moo la koy baaxe yombul ñun yàlla dimbali nañu am nañu kilifa gu mat kilifa yàlla na fi yàgg te wér ku fi ñëw na ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér suñu borom yàggal ñu fi ñun ñëpp ñu yàgg fi ba am ngërëmal sëñ Touba ndax kenn ci ñun amul jot liggéey la ñuy def jaamu yàlla la ñuy def waaye bu ñu dajee fii di defarug mbokk di boole mbokk kon dañ ci yaakaar rek ngërëmal sëñ Touba yàlla nañ ko ci am te yaakaar nañ ko ci ñi ngi wax tamit mag suñu jëwriñ Serigne Moustapha Xawaas muy nuyu mbooloo mi di leen ziar di leen wax ni daa nekk rek ca la ko bàyyam bàyyi woon digal ko ko muy liggéey ak jaamu yàlla moo waral muy xaw di sori suñ ci nekk fi suñu rakk yëpp nekk fi mat lépp moo waral du bàyyi yitte yooyu di ñëw fii waaye mi ngi ànd ak njaboot gi ci xol mi ngi ànd ak ñoom ci dal mi ngi ànd ak ñoom ci lépp mi ngi leen di ziare mi ngi leen di ñaanal mi ngi sàkku ngeen ñaanal ci turu comité bi ni ma ko tàmbalee ñi ngi sant mbooloo mépp ci jafe-jafe yi yoon wi ci jafe-jafe yi jot yi di sant ñëpp di leen gërëm suñ galas dana ci dikkaat détaillé ko tudd kenn ku nekk jaar ci turam sant la gërëm la xamal la ni gis nañ la gis nañ li nga ci daj ñi ngi leen ciy gërëm ñi ngi leen ciy sant dinañ wax tuuti rek ci li nga xam ni moo nekkoon suñu sujet wu suñu temu conférence yi ñu waxoon ni tamit mooy nekk thème conférence bi fii bi ñu ci la ñuy waxtaan boobu ba léegi mooy jàmm ak naataange jàmm ni ko sëñ bi tekkee suñu yaakaar tey ak ëllëg mooy jàmm mooy jaamu yàlla kon nag ñi nga xam ni sañ naa leen fàttali ñu xam ni jàmm mooy jaamu yàlla ku jaamu yàlla am jàmm jàmm mooy li nga yéene sa bopp muy dëgg ci yow nga bëgg ko ci sa yaram nga bëgg ko ci sa mbokkum jullit kàddu yi nga xam ne boo koy yëkkati ci sa mbokkum jullit mu leer la ne bëggoo ko yëkkati ci yow ngay muslu di ko yëkkati ci sa mbokkum jullit nañuy waxtaan nañu yéeneente jàmm nañu yéeneente salaam nañu moytu di bëggal ab jàmbur loo xam ni bëggaloo ko sa bopp lu mel ni sax lexew fa fan li muy ndaw ndaw mooy jëkkante di jënd ngooñ mi ngir ñaan yàlla ëllëg mu cher nit ñi buñ ko soxlaa di ko jënd ci yow loolu sax du jàmm nañu yéeneente jàmm li ñu bëgg nañ ko bëggal suñuy mbokk nañ ko bëggal suñuy mbokki jullit su ko defee yàlla dana wàcce naataange te naataange nag jub na réew mi naataange won na kanam réew mi ngir liggéeyub sëñ Tuubaa bi man dama jàpp ni naataange yi fi nekk liggéeyub sëñ bi la yàlla defal nañu ko kon nañu te jàmm nañu te salaam nañu jaamu yàlla naataange gi ñu man ko jariñoo ndax dana wàcc buñ ko jariñoo dana wàcc buñ ko jariñoowul dana wàcc liy jub ci réew mi élection yi kenn ku nekk def ci ak mat def ci farata responsabilité état am na ci ndax moom lañ dénk yitte yépp kon prefet loolu ñu ngi la ci bàyyiloo xel di ci bàyyiloo xel njiitu réew mi mu def ci kemtulaay kattanam ngir jàmm am ci réew mi ndax ñun jàmm ñu rëy jig amuñu passeport beneen réew xaj na ku bëgg a génn génn waaye passeport Sénégal rek nga yor mënuñoo dem fenn suñu njaboot fi la nekk suñuy sutura fi la nekk kon yàlla na fi jàmm am ñu mën a jariñoo naataange gi loolu ñor nañu lool boobu ba léegi ca li ñuy waxtaan bañ demee Mbàkke di waajal màggal gi loolu lañ fa doon waxtaane ba ñu demee dakaar loolu lañ fa doon waxtaane fii tamit loolu lañ fi doo waxtaane waxtaan yu baree baree bare bari génn ci yàlla na yàlla nangu ko wàcce ko ci njabootu réew mépp bala ñoo wàcce suñuy kàddu nag dinañ indi sëriñ xaadim yow mi fi nekkal suñu sëriñ suñu mag suñu xarit sëriñ Ibra Joor ñenn nag ci ñi nga xam ni teew nañ fi teewal njiiti réew mi teew na fi Ibrahima Fall adjoint préfet wu Tivaouane Abdou Khadre Diallo adjoint sous préfet Niakhène Serigne Mass Gueye maire Mbayeen Modou Ndiaye adjoint maire Mbayeen Babacar Thiam directeur de cabinet ministre de l'hydraulique Mansour Faye Maguette Diouf tribunal bu Dakar Cheikh Ahmed Tidiane secrétaire ànd ak délégation bu mag Cheikh Tidiane lim na ko kon jarul ma ci yegsi si waat foofu dinaa ci taxaw tuuti ndax dañ fi teewal sama xarit sama am di jàmm Mouhamed Fall Braya mu woo ma bëggoon a teewal boppam lool ay yitte gàllankoor ko waaye bis bañ doon woote Dakar dafa bàyyi ay yitteem annulé ay rendez-vous ni Cheikh loo nekk maa nga ca mu rafet lool may sàkk kon yéen ñëpp tamit ngeen nangul ko ko lëre googu xam ni bëgg na jàppante ak yéen xam na ni ay nit ñu bëgg lu baax ngeen loolu mi ngi koy sàkku ci yéen man tamit maa ngi koy sàkku ci yéen maire monsieur le maire de la commune de Mbacké muy suñu maire ndax ñun nag Kajoor lañ dëkk waaye ni ko suñ jiili salaam waxee léegi dañu gàddaay jege ji sëñ Touba sëñ Modou Moustapha dëkkal ñu Mbacké ñu bokk Mbacké moom moo fay suñu maire moo fay suñu kilifa kon ba pare bokk ci kër gi ndax ni ko sëñ Touba boolee ak Madiène Soxna Amar bu sëñ Baytu Ndongo Joor bis bu set mu waxtaanal leen ko ngeen xam ni kon moom dafa dëkk ci dëkk bi dafa bokk ci dëkk bi kenn ëppale wu ko ci. le maire de la commune de Sadio Pape siidi Ndiaye doomu El Hadj Mbaye Ndiaye sëñ Baytu Ndongo Ndiaye ñu tudd ko sëñ Baytu Ndongo Joor bàyyam mu nekk maireu saajo tamit yabal na fi délégation bu am solo kon daal sëriñ ma sëriñ. Masamba Amar Serigne ma Amar loolu waroon nañ ko dugal sax ci délégation religieuse yi xaj na xel moo ko fàtte waaye bala may bala ma koy présenté sax sëñ maam ma damay wax ci moom tuuti ndax man sëñ man sëñ May Amar mooy sama tur cheikh ji dafa gën a siiw ndax cheikh sax mooy sëriñ ñu tuddee ma sëñ May Amar sama lépp di kër sëñ May sëñ May def ci man sax bu baree baree baree bari boo xam ni fu ne laay toog di ko wax. sëñ ji li nga doon wax ci li dundalu mbokk sëñ may mat na ci exemple ci dundal mbokk boole njaboot muñ te loolu mu ni bàyyam moo ko digaloon suñ bayti ndongo joor loo am na nga ko bokk ak njaboot gi njabootam yépp teew nañ laatu ñuy teew bisu mbàkke ba ñu parrainé la woon leen ko ñu def fa teraanga yu bari lool sëñ bi ci boppam sëñ maam gumba ñëwal boppam teew ànd ak njabootam jàngal ñu yar ñu xamal ñu àdduna yabal na rakkam sëñ Maam mu ñëw teewal ko fi teewaay bu rafet ñi ngi leen ciy sant ñi ngi leen ciy gërëm sant yi sax day rafet rek waaye dañ leen ci ëppalewut sax ba leen ciy sant ak gërëm waaye teew nañ fi teewaay bu rafet lool ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di tàllal seeni loxo barki dem bi ma toogee ak sëñ Maam Gumba loolu laa ko wax dama ko ne lu ñuy def boo ci gisee lu la jaaxal boo ñu ko bàyyiloo duñ la laaj lu tax dootuñu ko def ndax ñun kilifteen ci lañ judd ci lañ màgg te ci li ñuy fas yéenee nekk lu ñaaw lu rafetul lu kenn xamul kenn duñ ci dégg loolu laa nekk sama nawle yii ma nekkal dakaar tamit di liggéey ak ñoom lu ma xamul duma ko wax maa ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wàcc foofu samay kàddu di jéggulu ndax xam naa ni guddi na te ñi war a waxaat euh, des na yeneen wax yu am solo yu war a ñëwaat jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah